برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد السيد الاول والاخر وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتلى وسنته واقتلى بوابه الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. يسنت يا لباخ جلتي انت محمد صلى الله عليه وسلم قمت مولانا الشيخ ابراهيم يوسف. جزاله خلف جنرال تيجان الشيخ ماهي ابراهيم يوسف. جزاله خلف جنرال تيجان الشيخ ماهي ابراهيم يوسف. نم باي باب باي موني ومن يحبني ومن يراني في جنة خلي بلا بوتاني. is annani xalifatu tijaani moo di wax ne ñoo dañoo bëgg ñu téem téemoo témoyee ci soxna si tëdd Seyda Mariama Ibrahima Niass ñu def ci ay témoin waaye man de xam naa ne dana ma jafe lool dana ma xaw a jafe lool waaw <laughs> ma ma xam a jafe lool waaw ndax damaa xam ne koo xam ne moo moo mag say mag ba ba judd juddoo nga wax ci li ci xawe wala li nga dégg ci mag ñi rek <coughs> waaw lim la magee fas bu nu ko raw waaw te lim liggéey ci diine ak tereex xab yow liggéeyoo ko te àggoo foofu xanaa nga wax ci li nga ci xawe wala li nga liggéey ci mag rek mag ñi rek wala li ngay jot a xam ci moom nga expliqué li waaye dana jafe pour nga téeméer ci moom waaw waaw waaye nag li ci mënta xew daal xam naa ne ah ba ko bàyyi tuddee ba jàngal ko yar ko ba may ko jëkkër ba ni ko yàlla fàttee yóbboo mën naa wax ne daal doon doon dara sànq wu ci comme ñu mel ni man waaw maanaam dundam kër dara sànq wu ci dara amul dara dara dara dara sànq ci dundam dara ko ci dundam léppam comme ni ko daan bàyyee waxe ne alquran mooy alquran mooy léppam ñu mel ni ñoom Seyda Roqee ci Ibrahima Niass waaw surtout Seyda Seyda eh, Mariam guddeeg bëccëg mu ci alquran guddeeg bëccëg mu te te li ci gën a li ci li ci gën a doy waat daf ko booleeg leneen di tukki di giseeg taalibe yi maanaam di sos ay école école di jàng di jàngale waaw di boole réew yi nga xam ne juboowuñ yu mel ni comme ni ko waa ji waxoon eh, Iran ak Soudan ak yeneen ak yeneen yeneen am na yeneen yu mu ci boole woon loo xam ne eh, lii gars yi di wax naan eh, maanaam in yahdika bi rajulun wahid xayran min dunya wa mi'a fiha moom lépp la lépp la la ci boole woon waaw nguur daana ko dimbale hmm, waaye nag Euh, bu ci buñ ci yokkoon leneen tamit dana gën a baax suñ suñ suñ su fekkoon ne euh, daal am nañ loo xam ne daal euh, am nañ pouvoir si yàlla hmm, yàlla daf koy daf ko fi bàyyi ba ca kanam kanam kanam kanam kanam parce que góor gu góor gu mën jigéen la góor gu mën jigéen la waaw ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla tas ci barkeem te mañu te te mañu maxaam te eh, nim fonke alxuraan ak fu ma ko tegoon daal ni eh, góor ak jigéen ñi mag ak ndaw ñi daal war nañ cee bàyyi xel ndax suñu jamono ji hmm? suñu jamono jii war nañoo bàyyi ak xam ci baax bu baax a baax a baax baax a baax ñi koy jàng ak ñi koy jàngale surtout ñi koy jàng ñi koy jàng war nañ leen dimbale ñi jàng alxuraan ak ñi koy jàng war leen dimbale ñi jàng alxuraan ak ñi koy jàngale war nañu jóge parce que Baye Niass nee na Napoléon Karl ak ak li nii ñoom ñëpp def nañ fi ay bërëx bërëx yu bëri nak wayna am kër ku ci am asmatu gi yeneen ci bi am sallallahu alaihi wasallam waaw parce que yalla wax yu leen waaw ñu nak ah suñ doomi mënu ñu ñak jang français de suñ doomi wax dëgg mënu ñu ñak jang français waaw parce que nak bokku na ci lak réew mi waaye nak wala nee bolé yow jàngal manam yobu leen ci école yi jang français mais war nañu bolé timit manam suñ doomi tamit ñu jàngale leen li mag ñi jàngale Sëriñ Tuubaa lu mu jàngale Xaaj Maalik lu mu jàngale maam Borom Tuubaa lu mu jàngale maam Xalifa lu mu jàngale Cheikh Ibrahima Niass maam Xaaj Abdoulaye Niass lu nañ koo boole ci jàng war nañ koo boole ci li ñuy jàngale ci réew mi ay Karl Marx ak Napoléon ba waaw euh, war nañ koo wàññi jàngale ci jàngale mag ñi wax dëgg yàlla waaw loolu na ci école bi nga xam ne moo xam moom la Cheikh Mouna Ibrahima Niass seen jamono ji amee te Cheikh Mahi Ibrahima Niass jox ko yal na ko yàlla fay waaw moom tamit li Cheikh Mouhamed Niass li mu ci doon doxal moom tamit comme li ci doon Seyda Mariama jox waaw moom la doon sabaam ji dox na maa kan la woo maa man la wa innahu wallitahu hada al bar'i min al madrasi Mouhamed Niass mosu cee jub mboolem tukki yi Mouhamed Niass tukki yëpp école bee tax mu sonn ci école Cheikh Mahi Ibrahima Niass jël ko ñu jox ko moom tamit mu sonné ci noonu waaw ñu jël Cheikh jox ko Cheikh Muna Mouhamina Ibrahima Niass waaw. kon nag ñoom ñëpp yal na yàlla dimbale yal na may jàmm yal na yàlla doomam doomu Seydou Amady am nañu fi ñu ngi def ñu ngi koy wala ñu ngi koy wër wër yàggal yàggal leen fi te yàlla dimbale leen ñu fexe ba école bi taxaw ko lu ëpp li Seydou Amady taxawee ci alxuraan te am na yaakaar ne xam nañ ko te am naa yaakaar ne mën nañ foog naa ne ñu ne école bi école Seda bi ko rek yaakaar naa ne te ne ci gën a tax dinañ ci gën a parce que suñu maam Cheikh Ibrahima ak seen nijaay ak Seda loolu rek la bëggoon waaw kon nag tey mooy bi buggu mu gudd li ma mën a xam daal mooy fa mu jëm daal na ko gënal fi mu jógee te xam naa ne fa mu jëm ko man xam naa loolu xam naa ne fa mu jëm ragalu ko ndax dégg naa ko ci vidéo mu wax ko waaw waaw ñu ñu ngi koy ñoo xama ci lu ne waaye Seydou daal fa mu xam na ko bu baax a baax a baax a baax di sant yàlla jiitu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa di ñaanal ñëpp di ñaanal Sénégal jàmm di ñaanal Sénégal jàmm Sénégal yàlla na fi yàlla saxal jàmm Sénégal yàlla na fi yàlla saxal jàmm ñi amam na sax Sénégal yàlla na yàlla xeet ci te yàlla na yàlla xëy lay jël Sénégal te yàlla na leen ci yàlla dimbale yàlla mën na loolu yàlla nu ñu koy defal yàlla na yàlla xeetal baytu muqaddis yàlla na ko yàlla xeetal baytu muqaddis yàlla ko yàlla gën leen loxo ci loxo noonu yàlla suy naa yàlla na ko yàlla dudd junni arab yàlla na yàlla xarak na wér ba ne saara yàlla na yàlla dem seen nguur yàlla naa gépp gépp nguur gu leen dimbale yàlla jàmm ci Irak ci Afghanistan ci Darfour ci Somal ci Yemen ci Irak Iran yalla na yàlla dindi ambal gobi, Iran yalla na yàlla dindi ambal gobi, yal na yàlla dimbali julli ji ak islam yalla na dimbal julli ñi yalla na yàlla may jamm may liggéey barkeel ndaw yi may may xam-xam may barke may xaalis may jamm may wér dimbali hôpital yi waaw dimbali gi ñi jang ñamu jikko yalla may leen jëkkër ñamu amul yalla may leen soxna waaw yalla dimbali réew mi may réew mi naataange ak barke ak tawfiq ah ak may réew mi do ak dolli réew mi njiit goo xam ne nag gën a bëgg lislaam jëlee jëlee ci ay góor jigéen ak formation ak lu ne yëpp yàlla jëlee ko fi génne ko ci réew mi nit ñi yàlla may leen liñ bëgg yëpp ci saar ak ci baati te leen def ci réew mi jàmm allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijan jox ñu ñuy